Amadou Ba. cinquième président. Amadou Ba. cinquième président. Amadou Ba. noor est prêt pour pour élire. Amadou Ba. randu kan la waa randu leen di fal. kan la waa Thiès di fal. kan la waa Sénégal di fal. kon Amadou rek. Amadou Ba kese Amadou Ba dong wax dëgg yàlla si naaj bu tàng bi ak koor bi mais aussi di sant comité électoral bu centre de vote Mary Kairé Diaw parce que ku gis comité électoral ni mu bindoo xam ni ay jeunes ñoo ko ëmb ay jigéen ñoo ko ëmb te dañ ne électorat Sénégal ndaw ñi la ak jigéen ñi kon ñun en tant que di du comité électoral suñu xel day dal ci centre de vote Mary Kairé parce que li ëmm électorat bi muy ay ndaw ki jigéen ñoo fees dell si comité électoral bi tey nag comité bi ay bisa ngi ñuy génn suba ak ngoon ñuy génn suba ak ngoon parce que dañoo am engagement ak yaakaar si seen candidat Amadou Ba biñu biñu bi tàmbalee génn ba léegi amul kër gu ñu dugg ñu ne ñu arrêté leen wala ñu fasal ñu kanam wala ñu bañ ñoo déglu li si gën a doy waar kër yu bari suñ si duggee laata ñuy yegg li suñu wax waa kër googu mag ña fa nekk ñoo ñuy xamal yar bi nekk si suñu candidat que mës ñoo dégg coow si suñu candidat mës ñoo dégg lu luub si suñu candidat ba tax na ñun suñu proximité sax ña ñuy fekk si ñoo ñu koy gën a yombalal si wax euh, jikko yi nga xamante ne moom la suñu candidat jikkowoo am na kër guñ si dugg koo xamante ni dañ ñoo fàttali Amadou Ba ba muy nekk chef de service bu impôt et domaine bu région de Diourbel daan taxawu nit ñi am na yenn kër yoo xamante ni suñ si duggee dañ ñuy fàttali Amadou Ba bi muy nekk directeur général des impôts nga xam ni dafa am fu mu jëlee impôt am na koo xamante si fàttali nee nañu candidat malheureux bi nga xamante ni mujj ta doon candidat parce que dafa amoon ku mu waxaloon lu dul dëgg te jox fi ñu ko saka candidat muy Ousmane Sonko ba muy yor syndicat nga xamante ni fu ne lay taxaw di wax am na benn nit koo xamante ni si koñ bi la dëkk retraité impôt et domaine nee na Ousmane Sonko li muy saay-saay yëpp candidat euh, syndicat ba di am doole mësta attaqué Amadou Ba si bi muy nekk directeur général des impôts ndax liggéey Amadou Ba bu rafet ma ni que ah Ousmane Sonko de bi ñu ko defee chargé de mission ba muy doon syndicat wax ju rafet di mu daan seedeel directeur général Amadou Ba Amadou Ba ba léegi changé wul si jikko changé wul si doxalin changé wul si rigueur changé wul si engagement fo mu yóbbu jëlee woon impo ba fi mu ko indi ba ñoom ñu ne ay la yéen plan PSE bii c'est Macky bind ñu am problème jafe-jafe si courant bi nga xamante ni dañ ne jamono jooju que Ablaye Wade nguuram ñoo indi kuc kamet gi PSE bi trace bi nga xamante ni moom moo yor wàllu électricité bi Amadou Ba si tey ministre des finance moom moo dem négocier ji bañ am cent cinquante sept milliards mu ñëw def ko si ba tey jii délestage sax bu am cinq minutes mënatu la am Amadou Ba mi liggéeyaloon Macky Sall milliards yooyu côté diplomatie biñ ko dénkee affaire étrangères nga xamante ni chaque mois dañ lay wax Sénégal mën na jàmbarloo ak ab dëkk. wala Sénégal mën nañ ko génne ci ambassade sangam Amadou Ba def ci liggéey bu mucc ayib en tant que ministre des affaires étrangères muy loo xamante ni lu mujj ayib président Macky bi mu wootee first track ñu am Amadou Ba comme premier ministre mu jiite gouvernement bi yëf yi dafa daw deux cents à l'heure muy orienté le ministre des finances Moustapha Ba di orienté Antoine Diome comme ministre de l'intérieur di di orienté l'actuel ministre Sidiki Kaba comme ministre des forces armées ak ñeneen ak ñeneen mën nañoo lim ñi gouvernement bi yëpp di leen pis piste di leen orienté dañoo gis ne euh, it gouvernement ni mu doon doxee dafa daw à deux cent à l'heure tey nag Ba boobu nekk kan daw Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba boobu nekk yaakaaru sénégalais yi Amadou Ba boobu nekk yaakaaru ndaw ñi mais Amadou Ba boobu nekk yaakaaru jigéen ñi Amadou Ba la ñuy doxal si weeru koor gi ci fukki fanu koor li jiitu di fukki fanu yërmande pour que nit ñi jox ko baatu askan wi dénk te Thiès duñ si des ginnaaw incha allah ran leen dinañ si participer à 1000 pour cent te incha allah au soir du 24 on va gagner la centre de vote Mary Kairé Diaw incha allah parce que askan wi wax nañ ko ak ñun Amadou Ba liggéey na yaram may nax ko Thiès ñi ma bokkal Benno Bokk Yaakaar. à que di leen rassurer que ni terrain bi dara new si ñun depuis ay fan ñu ngi dox xeer jógul pënd wu réwul nit ñi ñun la ñuy xaar pour ñu wax leen kan mooy Amadou Ba parce que parmi les dix-neuf candidats ñoom gisuñu ci candidat boo xamante ne daf leen doy candidat bi fi nekk waa këram di saaga nit ñi ci internet di xaste ci internet kooku c'est un jeune frère muy Bassirou Diomaye fay di nekk koo xamante ni Amadou Ba dafa nekkoon professeur am dafa nekkoon directeur général am moom ak patron am di wax ni Sénégal moo parewul moment bii nit ñi neneñ parewuñu pour am président boo xamante ni day am ku ko yilif te ki ko yilif matul kon moom moom mi ñuy yilif un jeune de quatre ku juddoo quatre-vingt-deux mënta wax te faw for nañ si wewu béykat ni mënta téye sax soxna suy wax day juum day liir mësta yéeg avion pour dem gàmmi kon Sénégal du ko présenté dañ koy dañ dañ koy rek Basir pour mu dem jàngaat Sénégal du lu ñuy tayle parce que population bee wax ñun ran leen dañ fay dëkk ak ñoo xamante ni ex lañ bokk jëloon seen yaakaar def ko si Ousmane Sonko ñooñu ils ont compris que ne Sonko n'est pas un candidat mais Ousmane Sonko candidat Bassirou Diomaye Faye mooy candidat te mënut a kon dañuy wax ñi nos alliés nañ wàcc si terrain ba à Thiès kenn moomu ko responsable bu ne su defee ni femmes yi def ni jeunes yi incha allah Thiès dinañ gagné département bu Thiès surtout la commune de Thiès te du am benn werante du am benn xiila du am benn xaaral. asalaamaaleykum man man la Mouhamed Fall nekk coordinateur des jeunes du comité électoral Malick Kairé Diaw di wax nii rek ñu ngi sur le terrain di campagne suñu candidat. Amadou Ba cinquième président incha allah nekkoon nii si proximité yi comme tey jii nii boo amee candidat boo xam moo yor meilleur profil pour nekk président surtout loo xam ne continuité lay doon incha allah na li fi président Macky Sall bàyyi Amadou Ba mën na koo àgg de incha allah moo gën tey jii nii nekk si yenn yi di contre ak yooyu noonu ñeneen ñi fi jeunes ñi fi nekk nag si xam ne ñëpp génn nañ jàppale suñu président Amadou Ba incha allah si lañ nekk nii. yan waaw parce que tey jii nii moo gën nekk fi di taal di xaañ ak yooyu noonu gën leen a conscientiser ñoo jàpp ci liggéey bi incha allah te gis nañ jeunes yi ñoom it génn massivement jàpp ci liggéey bi. man la Habib Gueye coordinateur départemental bu ASC e Thiès nekkaat ci mouvement bu nekk nekkaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar euh, comité électoral Malické waaw ñun ñoo ngi nii commencé depuis trois jour quatre jours ñu ngi commencé suñu comité di di wër di def proximité. di di saafante nit ñi fi ñu toll nii sax ci buntu ko imam lañ nekkoon nii pour pour waxtaan moom ci affaire électorale bi pour suñu candidat Amadou Ba ñun amuñ lu dul Ba li ñuy liggéey lépp fii ci koñ bi ak li ñuy liggéey au niveau national yëpp Amadou Ba moo tax pour gagner benn bokk yaakaar gagner en premier tour ñu wutuñu sax ay deuxième tour premier tour la ñu soxla li Amadou Ba di àndal li muy dégager ci ci ay nit fépp fu mu dem ci Sénégal même dem moo ci mu li li muy dégager ci ay ay nit yu bëree bëri bëri ñun suñu demee élection duñ duñ taxaw kenn nit ñi nag fi ñu toll nii lu ñuy jéem mooy nañu jéem dem ci nit ñi waxtaan ak nit ñi convaincre nit ñi parce que ñun dafa am lu ñu fi def président Macky Sall dafa am lu mu def fi Sénégal loolu continuité nag la ñuy wut pour Amadou Ba keneen ku ñu fi jox ci réew mi dañuy delluwaat à zéro rek continuité bi mooy Amadou Ba lu premier tour àggale liggéey bi président jot a def maa ngi ñaanal ñëpp du wax nag suñu candidat bi Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba ñu fal ko en premier ci seen waaw li ñuy wax nit ñi mooy li nga xam ne moom la président Macky liggéey bàyyi bàyyi ko fi ñu fas yéene ko liggéey liggéey ci Amadou Ba suñu ñaan yàlla Amadou Ba su Amadou Ba nga xam ni li ci li mu waroon def lu bëri 70 pour cent yëpp président Macky Sall jot na koo def mooy dafa tali dafa infrastructure Amadou bu ñëwee pétrole gaz bi nga xam moom moo fiy nekk incha bu neexee yàlla moom liggéey bi liggéey day am. Euh, ndox day yomb courant day yomb dund day yomb parce que état continuité rek la waaw. ginnaaw bi ngeen defee loolu ba pare ñu leen rek parce que koo dem ba ñu fi ñu mujjee dugg nii sax dañuy man sama xol ak sama xalaat lépp xalaatuma ko jox keneen ku dul du baax koo waxal danaa la Amadou baax parce que ñi nga xam ñoom ñooy présenté wu di wane ne ñoom ñoo moom dëkk bi amuñu maturité sax maturité sax amuñu ko. kon ñun gàcce ngaalaama ñun ñi nga xam ne dañuy ànd ak Amadou Ba suñu xel suñu xel dal na quoi ànd ak mbooloo nii rek taxul nga ngay gañ réew mi. président Amadou Ba. cinquième président. Amadou Ba. cinquième président. Amadou Ba. cinquième président. Amadou Ba. cinquième président. Amadou Ba. cinquième président. Randu leen noor est prêt pour pour élire. Amadou Ba. randu au soir du 24 kan la waa randu leen di fal. Amadou Ba au premier kan la waa Thiès di fal. kan la waa Sénégal di fal kon Amadou Ba rek Amadou Ba kese Amadou Ba dong suñu juróomeelu président